seeni wax yi min najwaahum bu ñuy déente seen déente yu bari amul njariñ illaa man amara dul ku digal bi sadaxatin di di santaane kuy saraxe wala muy joxe hadiya walla muy joxe lu baax aw maxruufin wala muy rafetal aw islaahin bayna naas wala ñaar ñu réeroon ñu bëgg leen a jubaale nañu faa déente ومن يفعل كدف ذلك لول ابتغاء مرضات الله دي ساك غرمل يالا فسوف نوتيه يالا نينا تاكانام فسوف فيتيرل نوتيه ناكو جو اجر اك باي ازيمان غو ري ري ري سنبرم تبارك وتعالى نينا ومن يساقيقي ومن يساقيقي رسول wa man képp nga xamna yu saqiqi da ngay ngaayo ngaayo rasul ak yaronte bi alayhi wasallam min bahdi gannaaw ba nga xamne ma maa tabayana leer na loxoo ñeel leen ñep al huda ñub gi di alquran waya tabi nga top xayra sabilil muminin nga topal banen yoon budul dul yoonu wëy gëm nu wallihi dañu ko méngale yalla ko maa tawallaa la mu mérité wa nuslihi daañu ko sànni jahannama safara wa saat moom wa saat kee bon masiran ak mucc inna laaha naka yàlla laa yaxfiru du jéggale an yusrik ku bokkaale bihi ak moom dara maanaam ku koo ko dendeleel wala baneen yàlla yàlla du bokkaale loolu inna allaha naka yàlla laa yaxfir du jéggale an yusrak ku ko bokkaale bihi ak lu mu mën doon dara dara du ko bokka du ko nangu wa yaxfiru dana jéggale maa doona zalika laneen baneen bàkkaar bu dul bokkaale li man yashaaw si ya ko soob moom ya ko soob moom yàlla wa man ku bokkaale billaahi ci yàlla faqat dalla sànku nga dalaalan ak sànku baydan gu sore sore sore yow sànku nga fur in yadda woona yàlla nee na xaallahu taala in yadda woona woowuñu min duunihi gannaaw yàlla illaa inaasan illaa inaasan lu may ay xërëm soo gisee fii mujjee daf ko jigéenal illaa inaasan yu dul yu nga xam ne illaa inaasan laata wa usaa wa manaata ak yeneen lay wax païen makk yi ñoo doon jël seeni idole ya di ko tudde ay turi jigéen di ko jaamu ba tey am na ba tey am na illaa inaasan bii ba tey am na aha wa man yadoon déggal in yadoon woowuñu min dunillahi kudul yàlla rek illaa inaasan moom lay tudde yooyu wa in yadoon woowuñu illaa seytaanan lu dul seytaanan seytaane pire maridan dan bu féttéerlu nag gis nga aaya bi mat na bàyyi xel de hmm. ak kat doy aaya bi in yaddawoon min dunihi illaa inaasan wa in yaddawoon illaa seytaanan maridan gis nga eh, seytaane dafa nekk ku nga xam ne maanaam maridan setan bu fetterlu la seytaan la ba pare yamu ci mais dafa fetterlu da ngay gis muddu ko ci gaayu nga xamne fi day laal way kat yeeg yooyu yëpp ñu am genre benn place bu nga xamne setané fay dugg dugg leen lu mata a xel la il faut faire beaucoup attention mu ngay wax sa ñoña doon wo lanen lu yàlla foofa waaye fii am mu nga sen de yaag mu nga ca ne a wax la ko nag mhm. waaw waaw xaal laahu taala la annahu laahu yàlla ne na rëbb naa yooyu yëpp rëbb naa leen la annahu laahu yàlla rëbb na leen waqaala waqaala ba mu ko rëbbee seytaane lay wax koon fii waa dellul ca gannaaw ilaa seytaanan maridan lu dul seytaane bu féttéerlu nga ñëw ci kanam la annahu laahu yàlla rëbb na ko ba ko yàlla ba rëbbee ba pare lu mu wax waxaara mu ne laa la attaxisanna dinaa jàpp man mi seytaane min ibadika lenn say jaam nasiban groupe bu nga xam ne mafrudan maa leen di gouverneur maay nekk seen gouverneur yàlla nañ yàlla musal su gouvernement wu seytaane barke alquran barke seydina muhammad salaa salaam barke Seexul Xadim yàlla bu sa bokk hmm? nasiban mafrudan na am boo xamee ne bile moom moo ni la attaqué zanna dinaa jàpp min ibadika lenn say jaam du gouverner wala uddi lannahum dinaa leen sànk ñoom wala uddi lannahum dama leen di sànq wala am wala wala u man ni yannahum wala u man ni yannahum dama leen jox ay espoir ay faux espoir que dina baax doxal leen rek nekk leen ci lii ca dina baax ba ñu màgget du ñu gis tus ba du ñu man dara wala amurannahum dinaa leen digal seytaan ay wax de wala amurannahum dinaa leen digal fala yu batti kunna daañu xar azaanal an aami daañu xar noppi jur gi xar yeeg fas e, e, e, nag yeeg daañu ko xar ngir lan naan bu buñ ko xaree mm, day tax mu def nii wala nangam ay ay fenn kese waaw seetaan leen koy digal am amurannahum dinaa leen digal fa la yu na daañu sensé xal-xallaahi xeesal baa ngoog léegi nag waxuma sax xeesal bi mais la doon def ca noppi nag ya léegi di ko xarak nangam ak nangam léegi nag fi mu ne jigéen ñaa ngay jël seeni bekken di sa def ay ay ay yu ma xamul nag ñi sax dem nañu ba di ko def si làmmañ far. ah ah suñ boroom tabaraka wa taala ne na waman yattaxi waman yattaxizi seytaana ku jafa ku jàppa seytaane wal yan muy ku lay dimbali min dunillahi nga bàyyi fi yàlla faqada xaasira perte nga xusraanan ak perte mu binan gu leer naññ naññ naññ kooku moom perte na sànku na suñu boroom tabaaraka wa taala nee na yaiduhum mu ngi mu ngi leen di dig yaiduhum mu ngi ñuy dig mu ngi leen di dig moom seytaane wayu man nii mu ngi leen di wóolloo naan leen gëmal sa bopp la certitude ak nangam ak seen philosophie yu fooy wamaa mu seytaane seytaane digu leen illaa xuruuran lu dul ay naxe rek da leen di nax rek mu jëntal ko ga rek la lu jëme yal nañu yàlla musal seytaan suñu boroom nee na ulaayika ñooñu bàyyi seen bopp caaxaan seen bopp ba seytaane yóbbu leen mawaahum seen ménguwaay ñoom ñoog seytaane jahannama jahannama lay doon du na doo duñu duñu fekk ñoom anha ëllëg mahisa be be kenn ku leen di sowe yomal du ñu mucc fenn ndax seytaane moom foofu rek la jëme nit ànd ak moom tabal ko safara والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وحد الله حق ومن ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيل كن يا رب سيمرم تبارك وتعالى ننه wallazina gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu waa aamiloo ñuy jëf assaalihaati jëf ju baax sa nudxiluhum dinaa leen tabbal jannaatin ajjana tajari mu ngay daw min taxtiha sa suuf wa bâtiment yaag yooyu alaan xaaru ay dex xaalit ne fa la sax fii haa ca ajjana ju abadan kenn leen fa génnati wax dallahi datu yàlla la xaq bu dëgg wax dallahi xaqan daal bu yàlla daal la dana ko def moom wax dallahi xaqan il mooy le moyen de tout il le fera wax dallahi xaqan dana ko def léegi nag day poser question wa asdaqu ana ku gën a dëggu minallaahi ci ay wax kenn yàlla ne la wa man asdaqu ana ku gën a dëggu ci yàlla wa man asdaqu ana ku gën a dëggu minallaahi qiila ana ku ku gën a dëggu baat yàlla kenn yàlla yaa rabbi اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولاي انك تواب رحيم واعف عنا